yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu fanweereelu njàngale mi ak juróom seytaane fiir na yeesu nanu bamtu nettali yi weesu benn naka la yéesu wuute woon ak ay moromam bi ñu nekkee xale. yeesu amoon na xam-xam tey def li yàlla bëgg. ñaar kan mooy yaxya yaxya ab yonente la bu ñëwoon ngir yëgle ñëw almasi bi ñett lan la yaxya jàngale jàngale na ne bépp doomu aadama bakkaarkat la te yàlla dina atte bépp bakkaar wax na ne nit ñi war nañu tub seeni bakkaar te ñaan yàlla mu bal leen ñeent lan mooy tub say bakar tub say bakkaar mooy rëccu say bakkaar te bàyyi bakkaar war nga ñaan yàlla mu bal la war nga nangu ne bakkaarkat nga te yàlla nga yàlla àtte la war nga xam ne mënuloo def dara ba jot say bakkaar juróom lan la soob ci ndox di jëriñ soob ci ndox mooy nangu nga ne bakaarkat nga te yelloo nga dee waaye gëm nga ne yàlla mën na la musal jaare ko ci musalkat bi juróom lu xew bi yaxya soobee yeesu ci ndox xel mu sell mi wàcc na ci yeesu ci melo pitax yàlla waxe asamaan ne yaa sama doom ji ma bëgg ci yow la amee bànneex mbind mu sell mi nee na ci Macca saar ñeent aaya benn ba aaya fukk benn bi loolu amee xelum yàlla yóbbu yéesu ca manding ma ngir mu jànkoonte ak fiiri seytaane yeesu nekk fa te lekkul ñeent fukki bëccëg ak ñeent fukki guddi door a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 ndaxte mbind mi nee na na nga yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek noonu seytaane bàyyi te ay malaaka daal di ñëw fi yéesu di ko toppatoo bu leen fàtte ràññee melukaani yàlla yi ci nettali bi seytaane fiir na yeesu bi mu ngi aju ci bi seytaane fiiree yeesu ganaaw bi yaxya soobee yéesu ci dex gi xelu yàlla yóbbu yeesu ca màndiŋ ma foofa seytaane fiir ko seytaane fiir na yeesu ngir daan yàlla ni mu fiire woon aadama ak awa seytaane bëggoon na fànq li yàlla tëral yéesu woor na ca màndiŋ ma ñeent fukki guddi ak ñeent fukki bëccëg gannaaw gi mu xiif lool noonu seytaane ñëw ci moom ne ko boo dee doomu yàlla santal doj yi ñu nekk mburu yéesu tontu ko ne mbind mi nee na nit du dundee mburu rek waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñu yàlla noonu seytaane yobu yeesu ci dëkk bu sell bi teg ko ci njabaxtalu kër yàlla ga seytaane ne ko boo dee doomu yàlla tëbal ci suuf ndaxte mbind mi nee na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 na nga màggal yàlla sa borom te jaamu ko moom rek noonu seytaane bàyyi ko daldi dem yàlla yónni ay malaaka ñu toppatoo yéesu yéesu daan na seytaane ci ay kàddu yàlla seytaane daanul yéesu ni mu daane woon aadama ak awa ca tool ba gannaaw gi seytaane fiir na yéesu ay yooni yoon fiir nañu yéesu ci dundam xeetu fiir gu xel mën a daj waaye yeesu mësul topp seytaane yéesu mësul bakar fii la nettali bi yem am na ay laaj benn ñaata fan la yeesu woor ca manding ma yeesu woor na ñeent fukki bëccëg ak ñeent fukki guddi ñaar naka la seytaane jëkk fiire yéesu seytaane wax yéesu mu soppi doj yi def leen mburu ñett lan la ko yéesu tontu yéesu tontu na ko ne mbind mi nee na ni mburu rek waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñug yàlla ñeent lan mooy ñaareelu fiir bi seytaane wax na yeesu mu tëbee ca ñobaxtalu kër yàlla ga mu ne ko malaaka yi dinañu ko aw juróom lu ko yéesu tontu yéesu tontu na ko bul diingat yàlla sa boroom juróom benn ban fiir la ci seytaane teg seytaane nee yéesu yeesu dina ko may réew yépp ci àddina su yeesu sukkee màggal ko juróom ñaar lu ko yéesu tontu yeesu tontu na ko sore ma seytaane ndaxte mbind mi nee na na nga màggal yàlla sa boroom te jaamu ko moom rek juróom-ñett lu tax seytaane fiir yeesu dafa bëggoon mu bàkkaar ni ki aadama ak awa bi aadama ak awa bàkkaaree la seen kóllëre ak yàlla tas yeesu ñëw na ngir fasat kóllëre ci diggante nit ñi ak yàlla kon seytaane bëggoon na nax yeesu ba mu bàkkaar juróom-ñeent naka la yéesu daanee seytaane dafa tontu ak ay kàddu yàlla fukk ndax kàddu yàlla am na doole waaw am na doole ju baree bare fukk benn lu tax seytaane mënoon a may yeesu sañ-sañu yilif àddina sépp bi aadama dégg dee yàlla ci la seytaane moom àddina fukk ak ñaar kan moo gën a màgg ci diggante seytaane ak yeesu yeesu fukk ak ñett naka la nu seytaane di fiire dafa nuy jéem a nax ngir ñu moy yàlla yan melokaani yàlla ñoo feeñ ci nettali bi ak naka lañ ci feeñe yàlla mooy borom doole kàddug yàlla moo ëpp doole seytaane gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla yónni na ay malaaka ngir ñu toppatoo yéesu ca manding ma yàlla kenn amul moroom seytaane fir yéesu ngir mu bàkkaar seytaane jëm na fànq li yàlla tëral waaye antuwul beneen yoon dañu waxtaan ci bi yéesu di tàmbali liggéeyam